jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16 ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi. yéen sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi ñu leen di nuyu bu baax a baax mbokk yi nag tey ñu invité mu nuyu Alioune kan mu ne Alioune Kane euh, moom nag mu bokk ci euh, parti démocratique euh, sénégalais nekk membre comité directeur nekk tamit secretaire national adjoint chargé des élections nekk membre tamit ci comi ci commission communication nationale nekk coordonnateur départemental PDS Kër Massar Kër Massar nekk tamit coordonnateur Kër Massar Nord nekk candidat coalition Wallu Sénégal Euh, ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn euh, ci Kër masaar Nord tey euh, moom la ñu mu Mounirou Alioune kan maa ngi lay nuyu. waaw Abdou Khadre maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleemu téléspectateur ak auditeurs yi nga xamante ni ñoo ngi déglu réew mi FM. Euh, rawatina émission bi nga xamante ne mooy euh, pencum réew mi. Euh, ma am mbégte trop nag teew fii ci émission bi ni ngi ko présenté noonu la nekk membre ak kilifa ci parti démocratique sénégalais. nekkit tamit responsable départemental ak Kër Massar donc mooy nuyu tous les militants et militantes tous les sympathisants du PDS rawatina du département de Kër Massar ak Kër Massar fi nga xamante ne fa laa dëkk. Mounirou Alioune Kane. Euh, sànq ci présentation bi euh, gis naa ne yow yaa nekkoon candidat coalition wàllu Sénégal ci élection locale yi ñu génn ci euh, Kër Massar Nord dañ laa mujjoon a gañe foofu. waaw euh, man maa nekkoon le candidat du parti démocratique sénégalais euh, nekkoon le candidat de wàllu Sénégal parce que locale yi comme dañ demee woon bannière wàllu Sénégal donc ma nekkoon candidat wàllu Sénégal foofu ci Kër Massar Nord. yàlla dogal élection yi aussi bi ñuy demee ba am euh, vague yeewi askan wi tamit épargné wu ñu donc euh, yeewi askan wi remporté la commune de Kër Massar Nord en l'occurrence le maire Adama Sarr mi nga xamante ne moom moo jiite woon yeewi askan wi Euh, mais yàlla dogal aussi euh, ci élection yooyu ñu expérimenté la nga xamante ne aussi moom moo nekkoon suñu leadership local ah parce que bii moo nekkoon suñu première participation à une élection euh, en tant que candidat ñu am un leadership boo xamante ne dañ ko doon incarné dans la commune de Kër Massar ñu yàgg def foofu ay activités ci inondation yi ak yeneen ak yeneen biñ ko incarné aussi yàlla dogal ñu am chance ba coalition bi amee. ñu am sax d'autres éléments yoo xamante ne dañ jóge woon yeewi askan wi ñoo fekki suñu ci wàllu Sénégal donc jaakaar naa sax tey formule bi nga xamante ne euh, de la commune de Kër que amoon nañ des éléments de yeewi yu ñëwoon jàppale la coalition wàllu wàllu Sénégal. Mmh. loolu nag moo waral la nga xamante ne moom lañ nekkoon di di def yàlla dogal expérience boobu ñu am ci ay résultats yu am solo ay résultats yoo xamante résultat yu yu yu yu jéggi daayoo la te loolu wax dëgg yàlla xëy na ci émission bi dinañ ci ñëwaat mais ci gàttan jàpp nañ ne euh, porte nañ la bannière du parti démocratique sénégalais porté nañ laa bannière bi nga xamante ne mooy wàllu Sénégal ci biir département Kër Moussa et li ko war a mën a expliquer mooy le PDS avait cinq candidats dans le département de Kër Moussa yi bokk ci biir PDS. on a six communes dans le département mais candidats yi nga xamante ne dañ bokk PDS it étaient cinq. élection locale ci élection locale yi. te ñoom ñëpp yàlla dogal na man mii ndaw te nekkoon aussi euh, ci première participation man maa ëppale score foofu ci département Kër Massar bi nga xamante ni moom lañ nekkoon. donc loolu aussi dafay firndeel leadership local bi nga xamante ni amoon nañ ko te mu nekk leadership bu am solo. d' accord jërëjëf euh, niru Alioune euh, kan joomul ne peut-être danañ dellu siwaat ci élection locale yooyu. Euh, mais ñu ñëw ci euh, li nga xam ne mooy élection législative yi euh, élection législative yi coalition wàllu Sénégal dafa amoon yéene moom dem ci élection législative yi coalition Yewwi am yéene dem ci élection législative yi ànd bi wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi ànd ndax nekkul loo xam ne ànd boobu bien vrai que am na ñuy wax ne Euh, ànd bu baax la pour cohabitation am assemblée nationale waaye est-ce que nekkul saafara bu jur jàngoro ndax gis nañ ni frustration bi euh, bëri na lool ban commentaire nga ci def. waaw xam nga euh, au départ je pense que lii am le président Abdoulaye Wade moo ko njëkk a théorisé yaakaar naa ci élection locale yi le président Abdoulaye Wade mi nga xamante mooy secrétaire général national parti démocratique sénégalais moom moo njëkkoon bëgg coalition bu am doole am ci la defaloon les quatre grands. mooy PDS mooy taxaw Sénégal mooy PASTEF mooy puir yàlla dogalul nag loolu antu ñu demee ba ci biir PDS génn ñi ci des dem fonde yeewi askan wi PDS fonde wàllu bu ñu demee ci local yi tamit gis nañ ne am na département yu bëri ñun ñàkk nañ ko ñun opposition suñu àndoon dañ koy gagné jàngat googu aussi moo am te ñu jàpp ni bu nekkee mbirum législative raw gàddu la boo demee tamit ci département yi soo demee am bannière wàllu am bannière yeewi soo moytul aussi dangay tasaare voix opposition yi et da ouvrir la voie à Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar day gagné département yi parce que mën na la jiite même bu dee benn voix mu jël député yi nga xamante ne ñoo fa nekk et bu boobaa mu am majorité assemblée nationale cohabitation bi nga xamante ne yow opposition bëgg nga ko doo ko am donc loolu jàngat yooyu yaakaar naa moo war a mën a fonde la nga xamante ni tey leader yi moom lañ gis bopp dem jël schéma boo xamante ne schéma euh, bi ñu teg la schéma bi ñu teg nag mooy ñoom ku nekk da ngay am sa liste nationale te noonu lañ ko defee mais ci département yi ñu fexe mutualiser seen ay seen ay force am 18 départements yoo xamante ne à l'intérieur du Sénégal dañ ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy wàllu Sénégal am 28 départements yoo xamante ni à l'intérieur du Sénégal dañ ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewi askan wi loolu nag am na ay avantages waaye am na ay limites te loolu noonu ñun liñ gis déjà première conséquence bi nga xamante ni jur na ko mooy un les militants à la base n'ont jamais été informés de ça c'est-à-dire bi toll noonu tolloon na foo xamante ne tey ñun ay responsables ay militants parti démocratique sénégalais surtout dañ jàppoon jusqu'au dernier moment que ñun dañuy dem seul aux élections gën kaa bëri dañuy ànd peut-être ak ñoom Mamadou Lamine Diallo ñi nga xamante c'est des alliés naturels mais au dernier moment bu coalition bi amee entente bi am au niveau des départements da loo xamante ne dana ko jur ci frustration au niveau des départements parce que dina am nga amoon boo doon dem yow kese pour investir say nit donc di nga créer ay frustration deuxièmement frustration boobu ngay créer dina répercuter encore sur la sur la liste nationale te liste nationale boobu noonu dinaa ñëwaat ci li tax mu nekk loo xamante ni euh, erreur la jàpp naa le fait que ñu mën a conquérir uniquement ci yenn département yi bañ a compétir ci yeneen département yi parce que couteau à double tranchant la maintenant nag lii nii dañ koy santé ña nga xamante ni mooy le président Abdoulaye Wade bi nga xamante amoon na gis-gis yéen ñi nga xamante ni yéen a nekkoon ci base bi euh, kenn informé wu leen woon. no kenn yëgu ko. d'ailleurs ñun ngeen ko yëg. ñun bi ñu koy yëg mooy au moment au moment du dépôt. bi ko ñëpp yëg. waaw bi ko ñëpp di yëg mooy bi ñu demee ba signé seen protocole d'accord ñun ci lañ ko yëgee xam nga loolu nag dafa am loo xamante ni après dana bett say responsable te surtout que PDS moo toog loo woon ay responsable am benn toogalin goo xamante ni tey bu leen ci dindee ci anam yii nii da leen di gën a indil problème. parce que munoo préparer say fédération neleen leen dem leen investiture. proposer leen ma ay candidats. au niveau parrainage. dem parrainage sax am problème parce que si si bannière PDS tamit lañ moom loolu processus bu normal la xam nañ ne dañuy parrainer pour suñu parti loolu dañ koy def sans souci mais munoo après nga ne say fédération dem leen en assemblée générale ngeen defal ma ay investiture proposer ma des candidats sur la liste nationale proposer ma des candidats sur la liste départementale pendant ce nga ne léegi da nga te loolu sacrifice 28 départements yooyu mooy par exemple dakaar foo waroon mën a investir 7 personnes léegi benn personne nga fay investir te waa Dakar defoon seen investiture par exemple proposé woon la 7 candidats si 7 candidats yooyu boo ci jëlee benn il est tout à fait normal que si si mer. si si gedd parce que joxoo leen benn explication lu dul dañoo ànd ak waa yi te loolu aussi nekkul choix de la base encore une fois la base n'a pas été consultée ci choix yooyu. donc loolu moo waral euh, li nga xamante ne jàpp naa ni ça crée des frustrations dans les départements et l' effet contraire effectivement mën na mën na mën na produire. waaw mais mais ni muy amee euh, jafe-jafe ci euh, wala frustration ci wàllu aussi am na ci département yoo xam ne mën na amee frustration noonu ci ci ci Askan Wi aussi. mais loolu moo am du du mën na am mais loolu moo am tey moo tax gis nga ñoom ñëpp dañoo nëbb liste départementale yi tey les listes nationales ñëpp xam nañ ne ñan ñoo nekk ci liste national yi. mais liste départementale à part ay quelques euh, fuites d'information yi ngay am mais munoo maa wax ñaar ba ñetti département yoo xamante ne xam nga lu fa nekk. parce que dañ ko vérifier parce que li tax ñu vérifier ko mooy problème yi dafa bëri dans les fédérations départementales te enjeu yi mu amoon parce que dem nañ local ku nekk natt sa bopp ku nekk xam nanga nga toll mu nekkoon ay enjeu mais am na département yoo xamante ne tey tu peux pas t'expliquer que nit ñi jël yeneen choix. te choix yooyu répondrewul ci benn critère bu objectif ci la nga xamante ne moom la base bi bindoo mënul nekk je te donne l'exemple de Kër Massar bi ma dëkk ñun Kër Massar la parti démocratique sénégalais daf ñu yónnee circulaire jël ñeenti responsable muy man mii Mounir Alioune Kane candidat à Kër Massar Nord muy Fat soow ki nga xamante moo nekkoon suñu candidate au niveau départemental muy Marie Aw candidate à Kër Massar Sud muy Massamba Gueye candidat à Yëmbal Sud parti bi ne ñu yéen ñeent ñooñu convoqué leen l'assemblée générale ñun ñeent ñooñu ñu taxaw di def ay démarches pour ñun ñeent ñu daje liir circulaire bi nga xamante ne moom la ñu yónnee pour waajal assemblée générale ci loolu ndaw si Fatou Sow yolleeku dem convoqué assemblée générale sant ñun ñett ñi nga xamante ne parti bi waxoon na nañ ànd ak moom ñu dem assemblée général bi mu defee assemblée général am balaa muy ñëw ci AG bi fekk na moom amoon na ay nit ñu mu tàbb ne ñooñu nooy nekk candidat ci département bi ak ci national ñu yëgal ko parti bi parti bi ne ñu ñëw leen déposé ñu def la parti bi wax ñu dem déposé yemuñu ci loolu ñu jóge ci loolu ñun ñu dem def suñu assemblée générale bi ñu defee suñu assemblée générale ñun tamit ñu def résolution ñu wax parti bi clairement dootuñu collaborer ak Fatou Sow au niveau départemental en politique dootuñ collaborer ak moom parce que koo xamante ne day ñëw di tas kër yi ñëw Kër Massar Nord jël quelques responsables yóbbu leen ñëw Kër Massar Sud jël quelques responsables yóbbu leen ñëw Yëmbal Sud def noon jëm Yëmbal Nord def noonu def Malika ak Jaxaay kooku day tas kër kii tas kër nag doo ko jiital ci kër ñu ne parti bi kii boo leen ko naree jiital wala boo leen ko naree tàbb ci département ñun dootuñ ci ànd te dinañ ko boycotté même même même bien avant bien avant yeey wàllu bien avant yeey wàllu ci investiture yi ñu yóbbul leen résolution bi te loolu lama lay wax nii vendredi la xew ñu dem déposer loolu ñu xëy samedi dimanche coalition Yewwi Wàllu am ñu dégg tey moom Fatou moom lañ tàbb département Kër Massar ñun nag lañ waxoon ci suñu résolution duñu ci dellu gannaaw. loolu fas yéene def. fas yéene def mooy ñun en tout cas du ñu collaborer politiquement parlant avec elle. wax nañ ko ci suñu résolution. kon da ngeen di boycotter euh, liste wàllu bi. non boycotter moom ñun on est des militants du PDS boycotter c'est trop mais danañ ko won ne ñun tabuñ la. mais da ngeen xeex liste bi. non fu mu yem neex. non mais Aliou non fu euh, mu xoolal lu ma lay wax nii dama lay wax loo xamante ne moom mooy nekk suñu ay sentiment ñun en tant que responsable te la ma la wax nii du man kese ñi ma limal nii parti bi taboon leen ñun ñëpp ñoo ciy ànd. c'est au niveau départemental. au niveau départemental. moom fu mu nem yeex. mais est-ce que au niveau départemental euh, ndax gis nañ ne bu dee tey Bara Gaye la pur porter candidature am Fatou Sow euh, PDS porté candidature am euh, te foofu gis nañ ne euh, am nañ fa yeewi waa waa Pastef aussi ñooñu est-ce que frustration bi nekk ci yéen moo am ci biir. Pastef mais moo gën a bëri que ci yeewi la gën a bëri. ci yeewi. ci yeewi la gën a bëri. am na beaucoup de gens yoo xamante ne ñoo ngi biir yeewi d'accorduñ ci choix bi tey moo tax man la woon sànq effet contraire bi ñuy xalaat mën na am. léegi lan moo tax foofu li ma jaaxal ci département bi lan moo tax Baara ñu taboon nañ ko ci local yi Fatou Sow ñu taboon ko au niveau ñoom ñaar lan moo tax ñu indiwaat leen mel ni ñoom kese ñoo nekk foofu. mais loolu la ñëpp mënul comprendre pour Baara mënuma ci wax mën naa ci maandu parce que bokku ñu fu ñuy nase bokkuñu fu ñuy toogee pour Baara su ma ci waxee ma tooñ ko parce que yeewi la demee woon local te man faruma yeewi donc lu muy def yeewi ak lii yeewi di def ci moom loolu dama ciy maandu. mais pour Fatou Sow mën naa ci wax man candidat laa woon Kër Massar Nord est-ce que xam nga Fatou Sow dafa battre campagne contre man est-ce que xam nga Fatou Sow dem na seeti Assome Diatta négocier ak moom pour que ñu jàppale ko département moom mu jàppale leen commune te loolu wax naa ko parti bi xam na ko donc man nit mënumaa jam ci local bëgg ma koy jàppale ci départemental au niveau des législatives. kon da ngeen man lu ma mën en tout cas pour list boobu du jàll naa ko def. et ça ça m'engage à titre personnel. mais est-ce que tey position bi nga am am nañu bokk Pastef am ñu bokk Yewwi. bëri nañ posture boobu. bëri nañ et moment venu ñëpp dinañ ko xam man du ma waxantu. mais dama gis ay gëwsu comment ñoom tim euh, frustré maire. mais loolu yëpp ci la parce que tey gawsu mën naa koo waxal ñoo bokkoon coalition moom moo nekkoon suñu tête de liste proportionnelle ci local yu ñu génn mais quelqu'un comme gawsu c'est le leader de la coalition jot na. nan nga ko mën a sànnee ay trente et quelques positions ci liste nationale te am na loo xamante ne joué na ko ci rôle bu bëri ci la nga xamante ne mooy négociation yi rapproché ñaari coalition yi xam naa ci dara parce que dañuy waxtaan donc frustration yooyu noonu nga généré ko ci département yi yow combine boo mën a def soo moytuwul l'effet contraire bi nga xamante ne moom nga doon sent moom ngay am et le plus grave le plus grave mooy lan le plus grave tey mooy ñaari coalition yi dañoo sacrifier seen ay liste nationale li tax ma ne la dañoo sacrifier seen ay liste nationale mooy aujourd'hui le PDS moom moo waxal boppam ni man nangu naa dans 28 départements samay voix yépp dem ci Yewwi mhm. Yewwi tamit ne man nangu naa dans 18 départements samay voix yépp dem ci ci Wallu mhm. mais mathématiquement euh, Yewwi moo moo jël avantage bëri mais mooy jël moo ñu ëpp ay députés sur la nationale mhm. parce que même boo xoolee les départements où il le plus d'électorat yeewi moo fa nekk yeewi moo fa nekk ñun à part Pikine à part Diourbel ak Mbacké amuñu beneen département bu am solo boo xamante ne moo koy gérer. te te département Mbacké cinq députés la trois yi yeewi moo ko jël. non mais en terme de voix sax parce que voix yooyu nga fay am. maanaam maanaam maanaam trois députés yi euh, yeewi moo ko jël. Mm-hmm. Pikine mm-hmm. li gars yi xamul Pikine trois députés yi yeewi moo ko jël wàllu ñaar la fa am. Mm-hmm. pendant ce temps Dakar même noonu la demee département Mbacké aussi. mais loolu mooy li ma lay wax nii parce que en réalité. opposition bi seen xalaat baax na seen xalaat baax na mooy lan dañ ne su ñu fexee remporter le maximum de département dañuy am beaucoup de députés la bas lu ñu mën a am tamit ci liste national su ko complété mën nañ dem cohabitation calcul yépp foofu la fondé mais lañ ignoré woon aussi mooy tey frustration yi am na fu muy toll mën na leen yàkkal d'abord au niveau départemental loolu mu nekk première conséquence deuxième conséquence bi mooy le nombre de départements yi nga xamante ne ku nekk si ñoom da nga ko sacrifier nombre de départements yooyu mën na la indil loo xamante ne tey sa liste nationale boo fa doon séntu 10 députés soo moytul doo fa am 5 députés. Mhm. parce que voix yi nga xamante ne moom moo la waroon nekkal reportage ci biir portage ci biir liste nationale bi. Mhm. dootoo ko amati te voix yooyu soo ko amul lu mu lay jural mooy sa liste sa dafay faible en terme de quotient électoral ma jox la benn yër rek. là où par exemple la coalition Wallu avait obtenu 400 et quelques mille voix soo moytul la coalition Wallu va se retrouver avec 200 et quelques mille voix et 200 mille voix mënu laa may plus de 6 députés donc am na loo xamante ne day et là j'interpelle tout le monde am na fooy toll il faut que nga fexe la ngay def méngoo ak la ngay d'accord léegi léegi léegi Mounirou euh, passé nañu état bu Euh, bu yeewi ànd ak wàllu léegi état bi ñu toll mooy état bu frustration am na est-ce que ñoom muniru ma frustré ak euh, ñoom Mayoro Faye ñoom Cheikh Bamba Dièye yeewi askan wi ñoom Moustapha yi euh, frus ñooñu frustré est-ce que possibilité am na pour ñu dellu siwaat seen xel non man xam nga nee naa la nu sommes dans le partie démocratique sénégalais ñoo ngi ci biir PDS génnuñu ñun ñoo ngi jusqu'à tey jusqu'à suba biir parti démocratique sénégalais génnuñu la ñuy xeex ci biir lañ koy xeex parce que man la ma ñor mooy lañ ma def ci département Kër Massar leneen ñoruma man dañ ma xeex ci local ma ànd ci ak muñ def la ma war a def ànd ci ak ay gor chaque jour coow yëgaluma ko kenn chaque jour. ndaw si amul lu mu deful pour yàkkal ñu. ñu muñ ko mais investir ko. PDS loolu nag mooy problème bi parce que ñun dañ jàpp ni tey ndaw si dañ ko favoriser depuis presque deux ans maintenant si suñu kaw. parti. mais par le chargé des structures. Saliou Dieng moom kese. mais Saliou Dieng ñi ko jox baraamu tuuma bëri na aussi. bëri na parce que li muy def su ma ko doon conseillé mooy nit boo nekkee chargé des structures. da ngay accessible nit ñi di wax ak yow ba pare nit ñi di jëf ak yow ba pare ngay jël alerte nit ñi di ko jël en compte mais su la nit ñi di defal ay alerte gis ne chaque fois bu ñu tollee ci beneen processus la nga xamante ne moom lañ yaakaaroon ne dina changer du changer nit ñi dañuy jàpp ne yow ñooñu nga faral. et sur le cas de Kër Massar nous on a alerté xam nga est-ce que xam nga avant ñuy dem local moom woo nañu permanence moom Saliou. ñu ñëw ñun départ ñun Kër Massar boobu c'était la grande commune Kër Massar Kër Massar nord et Kër Massar sud Fatou ñëw Marie Aw ñëw man ma ñëw c'était pour régler le problème de Kër Massar ñu ñëw ba yegg si 20 minutes avant rencontre bi di démarrer Fatou Sow taal otom ñibbi ñun ñu am grandeur dem toog ak Saliou nga ku def loolu mooy kii xam na ne nekkul ci dëgg. mais mais mais Fatou Sow ban envergure politique la ban dayoo politique. mais amul. yàlla xam na amul et xam nga toog fii di wax ci nit nekkul sama jikko mais dama bëgg a woon PDS 2012 jëm vingt 2022 bi wallahi azim Fat Sow mënu laa génneel benn photo fu mu fekkee manifestation PDS bi ñuy tëj Karim bi ñuy tëj Toussaint bi ñuy tëj Victor bi ñuy tëj euh, cadre yi bi ñuy tëj ñoom Omar bi ñuy tëj ñoom Baxaaw Jom mënuñ laa woon benn yoon fu daam bi ñëwee fekkee manifestation naan grenade lacrymogène daw ak policiers yi wala fekkee rassemblement. d'accord jërëjëf euh, Mounirou Alioune Kane mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM seen émission pencum réew mi léegi euh, Mounirou sànq posé naa la benn question boo xamante ni danga wax benn euh, cas boo xam ne cas bu particulier muy sa cas Kër Massar mais bii lan moo ci sa commentaire au niveau national coalition Yewwi Wàllu ba si diaspora bi Espagne aussi. Euh, sànq maa ngi liir benn journal ñuy wax frustration bi am ci diaspora bi aussi de manière générale coalition Yewwi ak euh, Wallu dafa bëri frustré démb gis nga conférence de presse bi ñoom Moustapha Guirassy doon def est-ce que jàpp nga ne élection euh, législative avant muy agsi solution man na am dajee am waxtaan am ba kenn ku nekk dellu si waat sa commentaire. non solution buy am tamit il faut nit ñi di waxante dëgg xam nga dans le PDS actuel. nit ñi dañ jàpp ni sentiment de frustration et de favoritisme daf ci bëri surtout sentiment de favoritisme ñu bëri nekkatuñu en sécurité dans dans le parti parce que jàpp nañ ne direction actuelle parti bi daleen leen di sacrifier te loolu lu nit ñi di wax la ñëpp xam ko ñëpp teg ci seen bët muy yeewi muy wàllu en tout cas suñu bëggee jëm kanam il faut que ñu jëm ci ay bases yu leer parce que nit ki aussi mënoo toog ci parti. di fa rey sa bopp di fa sacrifier sa bopp lu xew nga dem plateau lu mu metti metti nga dem défendre say couleur parti léeg-léeg sax à tes propres frais nga koy def mais loolu un temps soit peu de reconnaissance da nga koy soxla. waaw mais est-ce tamit euh, cohabitation bi ñu doon xalaat ba léegi est-ce que jàpp nga ne lu lu mën a nekk la wala. non xam nga li ma la wax cohabitation moom schéma schéma bi yeewu ak wàllu teg. li liñ ci jublu mooy cohabitation te xam nañ ne mënuñ am cohabitation su nekkee ku nekk si ñoom da jàpp ni rek dinga nga gagné quelques départements le nga am ko ci national ñoom pour ñu am cohabitation xam nañ il faut que ñu gagné le maximum de département te pour ñu gagné le maximum de département bi local yi weesoo dañ def seen ay statistiques def seen analyse ñu jàpp ni su ñaar ñii boolee seen ay voix dans plusieurs départements ñoom ñooy gagné donc nañ fédéré au niveau des départements mais dafa dafa bett ñu bëri. mais mais nañ fédéré mais nañ fédéré mais booy fédéré. ki nekk ci base bi euh, tey par exemple tey Kër Massar gi nga nekk amaana ña fa nekk euh, du ñu voteel Kër Massar Nord voté lu ñu wàllu euh, ngir Ablaye Wade dafa nekk wala ngir Karim Wade dafa nekk mais dañu woteel wàllu ngir Mounirou kan mais bu dee tey coalition yi ñi ñu war a fédéré si base bi ñooñu lañ fédéré frustration bu amee man nga bañ a gañe loolu nag mooy danger bi danger coalition bi yëpp tey foofu la tey niveau de frustration ci biir ñaari coalition bi dafa dafa dafa jéggi dayoo. te niveau de frustration boobu tey man xaw ma nan lañ ko war a mën a gérer dama lay jox benn exemple bu yomb rek imagineel man ma jóge local ma jóge local PDS di doxal ba parrainage yegg si ñu indil ma ay parrainage yoo xamante ne couleuru PDS moo ci nekk militant bi lay parrainel li muy yaakaar mooy PDS laay parrainel kon boo moytul lo législative PDS kese mooy dem. Mhm. il se prépare déjà que ni PDS moom kese moo war a dem. Mhm. nga ñëw ci dépôt yi candidature. nga def sa circulaire nga ne les fédérations départementales waxoon les fédérations de la coalition wàllu de da nga leen les fédérations départementales du PDS def leen seen ay assemblée générale def leen seen ay investiture envoyé leen ñu seen ay documents bal boobu gars yi dañ jàpp ni PDS mooy dem pendant ce temps yenn yéen ngi def ay tractations mais kenn terewu ko parce que bu ñu leen jébbalee direction parti mooy jébbal lañ leen sañ-sañ nas ak wax ak engager le parti. d'accord mais mais mais malheureusement. retour bi ak feedback bi dafa war a am. au hmm. niveau de départements. pour que nit ñi gën a mën a waajalaat seen bopp mais nii ñu def nii. Euh, dina jéggi dayoo te bu ñu moytuwul on va droit vers le mur. mais euh, Mounirou euh, Kane par département Kër bu dee tey Bara Gaye dafa bokkoon PDS wala dafa bokk PDS tey dégg nañ ko mu def ay sorties ci Karim tey bu dee Karim si nekk Kër Massar war a voter foofu. ñu leer ne bu ñu voté tey baaram moom mooy nekk euh, député te gis nañ Baara am na lu mu wax seen leader est-ce que ñooñu du ñu frustré ba bañ a voté liste bi aussi. mais pour être conséquent sax xam nga ne woon naa la sànq bëgguma wax ci ci Baara sama grand la euh, amuñu aucun problème mais politiquement parlant bokkutuñu jëmuwaay mais lu gën a simple mais local yi passé mais le PDS a tout fait pour que moom mu bañ a nekk candidat PDS yëmbal. jusqu'au dernier moment ci la génn dem yeewi mais logique pour logique koo buggul mu nekk sa candidat ci biir commune. Mhm. mais waroon nangu muy nekk candidat ak coalition bu mu mënti bokk. au niveau départemental. mais nit ñi ñoo conséquent wul léegi ci seen ay démarches et ñun loolu lañ mënul comprendre te wax nga ko effectivement nee woon na Karim daf koy tardel moom nee na Karim daf koy tardel Karim daf koy tardeel nag li nga wax dëgg la militant yi nekk à bu nekkee ñoom it Karim moo leen ñor mais kuy critiquer Karim du ñu ànd ak yow. jërëjëf jërëjëf euh, Mounirou euh, kan euh, coalition Yewwi coalition Wallu gis nañ ne frustration bi bëri na comme ni nga ko waxee au niveau ci département yu département yu bëree bëree bëri ñi nga xamante ni tey ñooy waa coalition benn Bokk Yaakaar est-ce que du ñoom ñoo si bénéficier wu kon. non xam nga Benno Bokk Yaakaar aussi <laughs> il faut que ñu def attention parce que seen liste ba lay génnagul te majeure partie frustration aussi ci parti au pouvoir lay ëpp. mais ñoom mën nañ ko gérer. non non non non non mais gérer ko moo gën a yomb. non non non non non non par exemple te mën naa la expliquer mhm. gérer bi. Mhm. xam nga tey par exemple tey yow euh, Mounirou euh, coalition wala munuñu laa dig dara mënuñ la ne mu Mounirou. dama lay yóbbu conseil économique social environnemental mënuñ laa wax Mounirou dama lay def ministre conseil mënuñ laa wax Mounirou dama lay def directeur général mais parti au pouvoir man na dig frustré yi dama lay def lii dama lay def laa. man milité wu ma aussi PDS pour ñu may dig. non la jox exemple non non ndax yoruñu. non non non mën nañ ma dig. non mais mën nañ ma dig parce que non mën nañ ma dig parce que xam na xam nañ tey la ma bëgg ci non déglu rek non déglu rek déglu di nga ma comprendre. la ñenn ñi nga xamante ni tey poste DG moo leen di dawloo wala poste ministre niiru kan servir PDS servir Abdoulaye Wade moo koy dawloo man nga jox ma document boo xamante ne signature président Abdoulaye Wade moo fi ci nekk moo ma gënal junni yoon nga jox ma beneen document donc Mounirou Kane doyloo na la fait que mu nekk disciple ak militant Abdoulaye Wade loolu li fi am la naa nag munoo defal ñëpp ay décret munoo defal ñëpp ay arrêté ministériel te dafa am loo xamante ne aussi ci biir benn boo ko Yaakaar dafa amoon ci local yi te Macky Sall le président comprendre woon na loolu mu envoyé ay mission parce que tey ma jox la cas Kër Massar noor kese ci local yi wees presque sept listes parallèles amoon na ci camp présidentiel ñooñ nan la ñuy xoolante diggante bi bëggoon na ko ñaw bu liste yi naate bu amee ñenn ñuñ tàbb tàbbu ñu ñeneen ñi lu lay won ne ñenn ñi dinañ considérer seen avenir politique soo moytul bu Benno Bokk Yaakaar gañee mooy jeex na et duñ voté sanction parce que ku nekk ak fa ngay toll ci réflexion ngay agiré. te ñenn ñi ñoo ngi ne dañoo bëgg a dem assemblée te peut bi moo nekk mandat bu mujj Macky Sall. yooyu yëpp a ngi ci am na ñoo xamante ne dañuy wax ne boo gisee ci 2022 yaa ngi ci 2023 te 2023 donc calcul yi fi muy toll ak nit ñi niveau de réflexion bi ñu toll moo dul moo dul évident moo tax ku anticiper ne Benno Bokk Yaakaar frustration dafa am wala Macky dina ko mën a gérer yaa ngi nax sa bopp ça dépend effectivement ci matuwaayu yenn leaders yi ak ci déggoo yenn leaders yi ak fu leen tamit opposition nar leen yóbbu cohabitation di toll su nekkee ñoom tamit jàpp nañ ne c'est l'heure de s'unir pour que opposition bañ leen yóbbu cohabitation mën nañ effectivement jëllale jéggale soudé wu. maanaam élection yi euh, coalition euh, bu mu gën a ñor rek yaay koy gagné. a ñor ak bu gën a mën a investiru sa la nga xamante ne di nga combattre les injustices bu la kenn nax tey le schéma surtout yeewi wàllu bu ñu réussirul ñaw diggante yi bu ñu réussirul fexe ba ñëpp ànd doon benn bu ñu réussirul. joxe ay perspectives claires ña nga xamante ne ñooy responsable à la base wan leen ne du du nekkuñ fi pour pour sacrifier leen bu ñu réussirul yooyu catastrophe lay jur mais par contre bu ñu ko réussiree déferlante lay nekk parce que tey gëm naa gëm naa wallu dooleel yeewi ci 18 département ci 18 ci 28 département day gën a dooleel yeewi yeewi dooleel wàllu ci 18 département day gën a dooleel wàllu mais gëm naa aussi. que loolu su nekkee ci niveau de frustration bi ñu toll la nar amee effet contraire bi mooy am mooy lañ ciy séentu ci département yi duñ ko am un ma lañ waroon am en temps normal ci liste national en tant que liste proportionnelle ci ay député duñ ko am. d'accord. Euh, jërëjëf euh, Mounirou kan yéen a ngi déglu euh, réew mi FM yow yaa ngi bokk parti démocratique sénégalais yow nga nekk secrétaire général secrétaire national chargé des élections nga nekk adjoint Euh, bokk ci euh, commission communication euh, bu PDS nekk coordonnateur PDS département Kër masaar ak Kër masaar noor nga nekkoon candidat ci élection locale yi ñu génn mais dañu gis Cheikh Bara Dolly ak Mayoro Faye ñoom ñu song Karim Wade ne Karim Wade traître la moo leen sacrifié lan moo ci sa xalaat. waaw man président Cheikh Bara Dolly xam naa ko ndax ñoo bokk parti. mais taxul ma miin ko euh, xam naa ni parti bi à un moment donné compté nañ ci moom jox nañ ko ay cër président Mayoro Faye euh, ku ma xam la ndax communication bi nga xamante ne moom laa bokk muy commission bi moo ko jiite ma xam ko tamit ci wetu Karim et pour la petite histoire président ñoom président Mayoro Faye ak samay ñoom papa ki ma jur Aliou Kane ñoo taxawal génération du concret mu yàgg cheminer ak sama ñoom pap ba ma ñëw ci parti bi continuer di cheminer ak ñoom kon xam naa ko et tey bu tollee ci état di critiquer Karim ah là ça devient sévère et grave war nañ poser waat des question moo tax tey euh, j'interpelle le président Karim Wade parce que le président Abdoulaye Wade li mu waroon def ci PDS def na ko fi mu waroon yóbbu PDS yóbbu na ko. président Karim Wade moom moo tollu tey ci fi nga xamante ne tey espoir yu ñu am pour PDS dundaat jëlaat pouvoir ci moom lañ ko teg. te gis nañ te gis nañ te gis nañ le fait que ku génn joxoñ président Karim Wade. Hmm. problème la waxuma ko nag euh, parce que man aussi dama bëgg joxoñ président Karim déedéet dama ko bëgg lancé un appel lancer un appel mooy s'il et s'il est toujours dans la logique de porter les espoirs du peuple libéral na defaraat toogaayam na xoolaat mbir yi na xoolaat ñi mu dënk parti bi. mais est-ce que Karim am na intermédiaire bu baax. parce que ñun mënuñu wax ni am na intermédiaire ou amul intermédiaire parce que ñun pour ñu jot ci Karim Wade problème la. ah bon. leer laa lay wax ñun les responsable pour ñu jot ci président Karim de problème la te ma gëm naa. soo nekkee un responsable d'envergure national da nga war accessible à tes responsables et à tes te loolu. dama koy ñaax président Karim Wade dama koy ñaax muy déggante ak nit ñi si lu dul saafaan ak bànneex mais muy déggante ak ñoom ci la nga xamante ne mooy les problématiques politique du parti les problématiques du moment muy wax ak nit ñi muy jël téléphone am di woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à la base di woo un Franck Dadi Diatta di woo un Abou Mbacké Diatta euh, Thiam di woo un Abdoulaye Bari di woo sax un euh, euh, un autre jeune boo xamante ne tey ràññeeku na ci parti bi pour ci ñaax ko ne ko continuer je te vois macha allah kooku gën a am confiance ci moom gën a am gëdd dem mais loolu su amul dafay créer benn dissension boo xamante ne dafay am entre moom et la base. mais mais est-ce que ñi nga xam ne ñoo am accès ci Karim Wade. Euh, ñooñu est-ce que euh, maanaam information yu wér yu leer euh, maanaam li am ci biir parti bi dëgg dëgg dëgg dëgg gi ak liñ koy xelal est-ce que jaar na yoon. non xam nga ñooñu du tax mënu ma leen accuser man problème dina am ma transféré ko Karim xam nga lu tax bu ma leen accuser parce que tamit su nekkoon ñoom rek lañ koy yónnee ñoom ñu chargé wu yónnee ko Karim bu boobaa mën nga leen accuser directement. gaa gaa sax peut-être am na lu ñu waroon def ñoom it manqué na d'accord na mais am na leneen loo xamante ne c'est le président Karim Wade lui-même parce que mbir dina am nga yónnee ko ko du la tontu te loolu nekkul luy encourager militant nekkul luy encourager responsable rawatina ndaw boo xamante ne bëgg na la fal ci biir réew mi bëgg na porter say espoir bëgg na porter say aspiration kooku da ko war dëggal danga ko war a di déglu danga ko war a di tontu da nga war a wax ak moom te loolu dafa war a am parce que ñun loolu lañ tàmm ñun dañ tàmm parti boo xamante ni le président Abdoulaye Wade bu fi nekkee ak daraajam nu mu mënti toll bu toogee dina déglu nit ñi 3 heures de temps 4 heures de temps bu paree dina tontu nit ñi wax ak nit ñi moo moo tax après seen xol xol nit ñi day féex dañuy demaat gën a am njàmbaarte pour jàpp ci parti bi liggéeyal parti bi mais tey PDS dafa toll foo xamante ne ñuy waxante dëgg suñu biir. wante dëgg suñu biir bi mooy lan nañ fexe wax ak le président Karim Wade ne ko bu nekkee li ñuy wax ci yow lu yaa ko def changé doxalin parce que dañ lay jiiñ ne da nga fi toog teg sa lobby ñu di xool ñu leen favorable di leen fi teg di jéem a favoriser ñi ñuy tuddee le karimistes contre les waddistes wala les PDistes te loolu c'est la plus grande bêtise intellectuelle et pensante du PDS actuellement. d'accord léegi mu est-ce que PDS. du xot wi rek moo fi des tur bi non PDS dafa am capital de sympathie boo xamante ne ba léegi le président Abdoulaye Wade daf ko incarné. mais loolu ay sympathisants Abdoulaye Wade la. waaw am beneen encore boo xamante ne c'est des sympathisants de Karim yàlla dafa may PDS ñaari force yooyu li manqué PDS mooy niveau de management boo xamante ne du de la base au sommet mën na effectivement retrouver wu ci benn dynamique boo xamante ne musiba naaru lay lay nekk loolu moo manqué PDS. parce que tey yàlla may na PDS tey da dugg famille boo xamante ni ñii doon ànd ak Abdoulaye Wade nekkatuñ fi yàlla moom na leen mais njaboot gaa ngi continuer de soutenir le président Abdoulaye Wade et le nga gis des jeunes yoo xamante ne musuñu xam politique musuñu dugg politique dugg nañ ci politique parce que Karim Wade ñëw na. mais euh, Mounirou euh, PDS Abdoulaye Wade mooy jiite seen liste nationale bi yéen euh, dafa mel ni keroog dama invité am na responsable bu ma invité dama fàtteeti kan la. Euh, man maa ko invité mu ne ma euh, yow sa papa bu amoon âge bi Ablaye Wade am doo nangu muy wàccaat ci terrain bi euh, di def politique dama fàtte effectivement ban ban politicien la bu ma invité wax ma lu mel noonu mais yéen PDS Ablaye Wade mag la bëri nay soppee mais yéen même coalition wala aussi ci local yi wax naa ko fi ñenn ci coalition bi man leen yéen logo Ablaye Wade bi Euh, couleur Ablaye Wade bi yéen si ngeen di bootu si ngeen làqatu ngir def seen communication làqatu ci ginnaaw Ablaye Wade euh, lan moo tax mënu leen a jël seen responsable seen engagement euh, demal seen bopp mais chaque jour dangeen ngeen làqatu ci góor gi. no xam nga làqatu ci président Abdoulaye Wade nit ñi ñoo koy gisee noonu et je rappelle les faits que man lu may wax yëpp ay faits la le président Abdoulaye Wade moo wax bu ko kenn waxati na bàyyi politique ñëpp ko dégg Sénégal ñëpp ko dégg. mu ne tant qu'il me un souffle de vie je ferai de la politique parce que dama jàpp ni lu noble la moo ko waxal boppam. le président Abdoulaye Wade demeure le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais mooy jël dogal yi. ndogal yi moo koy jël mais li gën a am solo. moo koy jël ba léegi. moo koy jël ba léegi est-ce que tuuma luñ ko jël non man moom moom la mooy jël parce que moom mooy signé. man mënuma wax keneen mooy jël ku dul président Abdoulaye Wade parce que moom mooy signé man note administrative bu ma jël signature président Abdoulaye laa ciy gis. donc damay jàpp ni moom moo koy jël. li ci des dama gis ne ci suñu circulaire pour investiture bi ñuy dem nii investiture bi dama gis ci circulaire bi ñu ne fédération bu nekk na proposer kan la xalaat pour mu jiite liste nationale. tey jii j'interpelle aussi la commission des investitures après dépouillement fédération yi ñaata fédération ñoo proposé le président Abdoulaye Wade est-ce que am na ñeneen ñu ñu proposé woon pour la liste nationale loolu su leeree dina tax ñun ñu am moment euh, moyen de communication ca la nga xamante ne moom lañ tàbbee président Abdoulaye Wade. ay élément de langage. élément de parce que bu nekkee loolu dafa jógee ko à la base bu nekkee par exemple yi nekk à la base dañ ne ñoom dañ bëgg te loolu certifié ci PV yaakaar naa ni kenn mënatuñu ngañ ci li nga xamante ne jiital nañ la président Abdoulaye Wade mais même bu dul loolu bu ñu yemee rek ci la président Abdoulaye Wade waxoon bu ko yàlla mayee ba léegi mu am kattan mën a def campagne mu am kattan mën a def ay tournée mu am kattan di wax ak nit ñi ñiy dégg nit ñi di wax ak moom muy dégg amul un meilleur profil pour mën a diriger la liste xalaat nga Abdoulaye Wade ñëw campagne ak bu doon campagne man gëm naa ne le président Abdoulaye Wade mosul dox ci ay légèreté gëm naa ne le président Abdoulaye Wade du fi nekk toog ba ñu def ko tête de pour muy toog ba ñu ñëw campagne c'est un homme de défi moom lu mu bokk da ciy dem jusqu'au bout c'est pas un homme à demi mesure loolu yàlla may nañu ko ci moom. mais est que tey yéen waa PDS sànq xam nga yaa ngi doon wax euh, seen frustration bi comme tout comme ça mais Wade tey euh, nga gis tey euh, affiche bi. photo Ablaye Wade nekk si euh, logo bi mboq mi euh, nekk si est-ce que Mounirou dina dugg ci urne jël ab Ablaye Wade boxoñ dugal ci poubelle. <laughs> yaa ngi mooy bëgg a jëlee ci sentiment. ah non euh, mais l'essentiel. mais da ngeen see boole sa non da ngeen see boole man président Abdoulaye Wade daf ñu jàngal à se battre contre les injustices daf ñu ko jàngal. Hmm. parce que dans tout sa carrière il s'est battu contre les injustices daf ñu ko jàngal ñu mokkal la ma wax duma ci dellu gannaaw. man Mounirou Alioune Kane responsable politique parti démocratique sénégalais à Kër Massar je ferai tout je ferai tout pour que injustice bi ñu ma teg dans le département de Kër Massar ma combattre ko. d'accord léegi euh, kon yéen daal yéen waa wàllu euh, jiital bi ngeen jiital Ablaye Wade jàpp nga ne lu logique la. mais c'est le secrétaire général national du PDS c'est l'homme charismatique du PDS tey amul à part peut-être Karim Wade mi nga xamante ne mënoon na ñëw ravir ko la vedette aw ma genn benn responsable bu ma gis boo xamante ne tey mënoon na taxaw liste national aura bi président Ablaye Wade di am nga am ko tey président Ablaye Wade mu annoncé moo ngi ñëw Sénégal rek li muy jur ci à une ci ay journaux li muy jur ci engouement médiatique benn responsable yàlla mayu ko ci biir PDS loolu mooy dëgg mais yéen euh, tey euh, Mounirou euh, wax nga sànq Ablaye Wade liste nationale tête de liste Ousmane Sonko si tête de liste ci coalition Yewwi Askan bi ñaari tête de yooyu noonu ànd lan lay def. non man mooy li ma la wax nii xam nga. les deux sa analyse politique. ndax da ngay ngay politique. damay politique mooy li nga kari euh, non mooy li ma la doon wax sànq rek parce que tey euh, man su ma su ma nekkoon ñaari coalition yi dama doon logique jusqu'au boo logique jusqu'au bout mooy am benn liste nationale unique am une unique liste nationale boo xamante ne Yewwi ak Wallu ñoo koy bokk. parce que loolu du désorienté désorienté sa électorat à la base xam nga tey danger beneen danger bi nga xamante ne mën na am ci coalition bi mooy soo moytuwul dans les départements où le Yewwi est censé représenter les de coalitions nga fekk fa bulletin wàllu dans les départements où le wàllu est censé représenter les deux coalitions nga fekk fa bulletin Yewwi mais loolu même loo ko préparé préparé am na militant boo xamante ne. bu fekkee bulletin yi bulletin Yewwi ak bulletin Wallu bulletin Wallu lay jël dugal ko ci urne bi waaw mais loolu moom mbokk mi la xam waaw mais loolu mbokk mi la xam mais tey par exemple tey soo ñëwoon département bu Mbacké par exemple tey ñu ne Wallu moo fa euh, Wallu moo fa nekk mais euh, waa coalition euh, Yewwi Wallu def nañu am nañu fa ay représentant ñu leen toogal ci biir urne yi boo fa indee bu Yewwi Askan Wi waru faa nekk ñu jël ko teg ko fële na la fii yeewu yeewi compatiru fi te boobaa dañ si am sañ-sañ. non xam nga euh, euh, en tout cas ça fera débat. ça fera débat. dama bëgg ñu bàyyi ci xel. ça fera débat parce que yër bi ma lay jox rek mooy code électoral may na la sañ-sañ. nga def uniquement sa liste nationale. bañ a def say liste départementale. du tere sa liste nationale boobu dina nekk ci partout au Sénégal. parce que sinon <laughs> jarul ngay dem élection. comme code électoral bu la mayee sañ-sañ boobu ça veut dire que même boo nekkul ci yenn département yi soo moytuwul sa bulletin dina fa nekk. loolu nag jàngat la bu waa coalition ñaari coalition yi war a def. taxaw bu mat sëkk lañ ci war a am parce que bu ñu fàtte ñoo ngi jëm mois de juin presque mai jeex na. bii ba balaa ñuy génn ci vérification liste yeeg pièces yu ñu war a remplacer mois de juin mooy ñëw. juin juillet kon li ñu dese ci temps pour communiquer. bëriwul. loolu opposition bi war nañ ko comprendre anticiper ji teel ko def. beneen bi mooy portée bi communication bi waroon am euh, soo moytul division bi dinañ ko xañ parce que la force de Yewwi ci locale yi passé c'était d'avoir un directoire solide avec des leaders nationaux soudés. ñu koy wone partout di ko doxee partout. de telle sort que ñi doon voter à la xoolu ñu sax ki fa nekkoon candidat. ñoom dañ xool ne yeewi conglomérat de grands leaders la am nañ yaakaar si ñii suñ leen joxee dinañ doxal réew mi ñu votel yeewi. waaw mais euh, bëri na nag euh, ñu frustré ci coalition yeewi euh, ñoom Guirassy ak ñoom Cheikh Bamba Dièye mais boo xoolee man xool naa seen conférence presse bi manaam ay leaders lañ yoo xam ne yu am tur lañ mais man suma leen doon natt amuñu benn poids politique bi maanaam am nañu nag kàddu peut-être am nañu ñu bari ñu leen di suivre see message mën na jàll ci média Euh, man gis naa ne euh, nekkul si ñu toogoon foofu même ñoom maître Moussa Diop boo pa par rapport élection yi passé mais euh, biir Yewwi bu dee Pastef ma nga fa socialiste si ñoom Khalifa Sall nekk fa PUR tamit mu nekk ñoo xamante ne ñu mën a voté lañ PDS nekk fa ñoo xam ne tey dañu bëri ay sympathisants ak ak maître Abdoulaye wadd ñooñu bu ñu amee benn communication bu xaw a jaar yoon est-ce que jàppoon ne solution mën naa am. noonu li ma gis te jàpp ko. mooy Moustapha ku mel ni Moustapha Guirassy en 2017 moom moo gagné son département. demul sax liste nationale liste départementale la demee. gagné son département. kon kooku il est représentatif. Kédougou ba léegi am na fa kaddu. ku mel ni euh, Serigne Mansour Sy Djamil. élection bu am bu demalee boppam am deux ou trois députés. kooku il est représentatif mais Serigne Mansour Sy Djamil bi léegi. waaw ak nu mënti demee rek. bi nekkoon bés ñaar. waaw ñoom Cheikh Omar Sy du Sëñ Mansour bi. waaw du ak nu mënti en tout cas loolu ay statistiques yi may gis la. maintenant évolution est-ce que perte na poids électoral wala dese na poids électoral loolu aussi euh, duma ma analyste euh, politique buy mën a joxe yooyu parce que yoruma statistique yu ma war a mën a tax ma évaluer ko parce que man mii di wax ak yow a Kër ma Massar noor bés du ñàkk man lañ jàppale woon au niveau de Kër Massar ci local yi. donc am na lu ma xam ci ñoom. Euh, mais l'un dans l'autre li ma bëggoon wax sànq mooy image bi sénégalais yi amoon ci un directoire de Yewwi fort conglomérat de leaders unis soudés ba loolu créé sentiment de confiance ci ñoom ba candidat yi doon campagne à la base dañu doon wax ah votel leen Yewwi soo leen votelee Yewwi mooy votel ngeen Sonko votel ngeen Khalifa Sall votel ngeen Serigne Mansour Sy Djamil ñuy lim leaders yooyu. di am mbégte parce que c'est c'est des leaders d'envergure seen kaddu day dem. seen image rafet euh, bi. mais sëñ Mansour moom rek nga si mën a wax local yi local yi suñ ko amatul suñ ko amatul dootuñu dootuñu mën a am même mode de communication bi parce que en réalité aussi il faut que ñu analyser topp la nga xamante ne mooy logique frondeurs yi biir yeew yi ñuy def conférence de presse démb jusqu'où ils sont prêts à aller c'est là la question est-ce que dinañ nekk ci euh, instance de sabotage Est-ce que qu'ils finiront par se ranger Est-ce que qu'ils vont retrouver le goût pour se battre pour Yewwi voilà les véritables questions su nekkee loolu yàlla def na fàtte nañ loolu loolu féete seen ginnaaw ñu ñëwaat ci Yewwi def benn say la Yewwi peut encore faire mal su nekkee c'est le cas contraire ah, moytul mu am dispersion des voix de Yewwi et c'est ça la réalité. d'accord léegi euh, Mounirou ñu wax ci euh, coalition euh, Yewwi ci Dakar. dañu wax ne respecté wuñ parité coow li juddu si euh, même Benno Bokk Yaakaar aussi dañu wax ne ñoom tiim dañu déposé ay parrain yu ëpp euh, te loolu aussi euh, loi bi daf koy daf koy tere lan moo ci sa waaw gis naa ne daal mbir mi bëri na doy na waar. gis naa ne daal élection ren yi euh, mel na ni mooy l' élection de tous les rebondissements. ce que du enjeu yi di toll. waaw peut être peut être peut cohabitation bi gars yi commencé tiit moo leen yóbbee lii yëpp ak bi gars yi commencé gis moo euh, créé engouement bi mais en, en tout cas euh, en ce qui concerne la liste de Dakar je pense que su nekkee noonu la amee légèreté am na je pense que tey nit mënul defar liste boo xamante ni respecté wul parité. jàpp ni mën na tromper la vigilance de l' administration. dañu complot la. waaw bu jekkee tamit am na ñoo xamante ne aussi dañ dem ba ci biir changer liste bi loolu tamit dañ koy ñaawlu mais l'un dans l' autre gis nga c' est le discours politique. le discours politique mooy discours bi nga xamante ne moom mooy génn médias yi di ko reprendre ñëpp di ko dégg mu nekk loo xamante ne day sax ci bopp nit ñi mais li ma gis mooy il faut que ñu créer les conditions pour permettre ko toutes les parties prenantes mën a bokk ci élection muy Dakar national. muy même ñoo xamante ne dañu rejeté seen ay parrainage parce que gis nga lu mel ni assemblée nationale il faut que ñu gën a bàyyi xel askan wi di tànn ña nga xamante ne ñoom la bëgg ñu nekk ay député ñàkkul ne am na assemblée nationale am na askan woo xamante ne soopoon na leen trop ñu gis jëmm ju mel ni peut-être Bougane Gueye Dany à l'assemblée nationale. peut-être am na ñeneen ñoo xamante ne soppoon nañ trop ñu gis jëmm ju mel ni ñoo xamante ne Momar Ndao Asko seen assemblée nationale. mais soo rejeté seen ay liste ànd nawle bu sëriñ bu sëriñ bu soo rejeté seen ay liste mooy peut-être am na askan woo xamante ne amoon nañ yéene porte seen choix si ñooñu xañ nga leen ko donc loolu man dama jàpp ni démocratie dafa war a nekk loo xamante ni gaa filtre baax na ci mais bu mu nekk filtre boo xamante ne dafay lalu ci injustice et li nga xamante ne moom mooy euh, problème yëpp mooy parrainage bi tey xoolal problème yi parrainage yi créé nan la direction générale des élections mën a tiim des milliers et des milliers de dossiers de candidature à régularisé war leen vérifier pièce par pièce ba pare encore nga leen yokkal liggéey pour ñuy vérifier parrainage ñooñu ay nit kese lañ duñ ay machine njuumte mën na ci am bañ a xam li ñuy def mën na ci am gis mbir bañ a prêter attention ndax fatiguement mën na ci am parce que tout est collé moment bi ñuy vérifier parrainage yi ak moment bi ñuy déposer candidature yi ak moment bi ñuy xool vérifier ndax candidature yi baax na wala baaxul presque chaque jour gars yi ñoo ngi fa guddi ak bëccëg duñ nelaw mais loolu nit mënu ko fonctionner noonu il faut que tey ñu revenir à de meilleurs sentiments ñu xam ne élection mbir bu sérieux la ñëpp a ko bokk. li xew dakaar dégg naa position ñoom Barthélemy Diaz dégg naa li ñuy accuser ki sant Sarr dégg naa li ñuy accuser direction générale des élections nañ xaar. bu dee bennoo. bu dee bennoo aussi légèreté am na parce que tey. Euh, loi mënul wax dara ngay tënk sa argument ci arrêté ministériel loolu aussi nañu waxante dëgg loi bi li mu wax moom la ñu war a jëfe constitution moo sut. waaw constitution moo sut code électoral moo sut code moo sut arrêté ministériel donc tey mënuñoo jël loi la nga xamante ne moom la wax bëgg koo teg fële di jël la nga xamante ne moom la arrêté ministériel wax di ko teg ci kaw. loi bi mënul nekk. mais nag xam nga foofu la aussi suñu démocratie foofu la amee faiblesse. faiblesse suñu démocratie ci ci moment yi nga koy nat parce que sénégalais boo ko wax dina la ne non waa Benno Bokk Yaakaar kay ñoo am tort waaye eh, xel mënul nangu waa Benno Bokk Yaakaar bañ a bokk ci élection. ah kay. d'accord dans une démocratie. ku respecté wul la nga xamante ne moom nga war a def mais doo bokk ci élection. d' accord jërëjëf euh, léegi euh, dernière question bi mooy euh, maître Abdoulaye Wade tey bu ñëwoon du ñàkk nag ay discours yoo xamante ni tey discours yu fort lay def pour revenir la raison militant yi nga xamante ni tey frustré nañ et tout ça même loolu mënut a revenir taxul Mounirou dellu si ndax sànq yow yaa ne signature Abdoulaye Wade. man de ñëpp xam nañ ni dama xër ci président Abdoulaye Wade ba jeex ñëpp xam. man sama deuxième fils président Abdoulaye Wade laa ko tuddee ñëpp xam nañ ne aussi mosuma xam beneen parti politique bu dul PDS musuma xam beneen idéologie pour président Abdoulaye ñëpp xam nañ ne aussi sama kàllaama ak sama bind su ma koy jëmle ci président Abdoulaye Wade amu ci sago ñëpp xam nañ loolu ci man waaye dafa am loo xamante ne aussi maître Wade daf ñu ko jàngal injustice dañ koy combattre man fi ma toll lañ ma def département Kër Massar mën naa ko fajal sama bopp. d'accord jërëjëf euh, Mounirou Alioune Kane ñu lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant euh, di la gërëm di am mbégte jàkkaarloog yow euh, c'est toujours un plaisir di aussi am mbégte ñëw participer ci émission bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi woon déglu réew mi FM. ah di ñaan yàlla suñu borom mu baal ñu lépp la nga xamante ni wax nañ ko fi te teguwul ci yoon. di ko baalu aussi auditeurs yi nga xamante ne ñoo ñuy doon déglu lépp lu ci xamante ne jaar na yoon ñu sante ko suñu borom di leen euh, jox euh, dax euh, daje ci yeneen jamono. ndax incha allahu rabbi aussi dinañ préparer la nga xamante ni moom lañ wax. PDS moom lay wax ci suñu résolution danañ ko doxee ci terrain bi danañ ko waxee ci terrain bi te incha allahu rabbi aussi duñu duñu toog di seetaan Eh, jërëjëf eh, Alioune eh, Mounirou Alioune Kane yow nga nekk membre ci comité directeur bu PDS nekk secrétaire national adjoint chargé des élections nekk membre ci commission communication national nekk coordonnateur départemental Kër Massar nga nekk coordonnateur tamit Kër Massar Nord nekkoon candidat Euh, coalition wàllu Sénégal ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ci euh, commune Kër Massar Nord mbokk yi euh, moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.